Euh, ba ñu nekkee élève à l' école nationale de police étant stagiaire la ñu jënd sit bi en 2016 bañ ko jëndee boobu ba tey on a eu acte de de session lañ fi am on a eu tous les problèmes du monde pour ñu mun a am suñu suñu délibération et autres par la suite on a on on nous a informé que euh, ci la ñuy xamal ni ni ki site bi euh, dafa am litige entre Narcisse bi nga xam mooy suñu promoteur bi ñu jaayoon moom ak waa Socabek depuis 2016 ba tey. 2016 ñun bi ñu ko amee 2016 lañ ko jënd avec quelque pratiquement ñu ci bëri dem nañu affectation ñaan yàlla dogal man maa ngi fii ñeneen ni ils sont dans les donc lii moo waral suñu ñëw bi fii pour waxtaan ak euh, askan bi xam ni site bi en réalité dëggantaan jaay ba ñu vérifier euh, paa bi ci lu mu wax ni ki réellement mësta waxtaan ak soka beeg ba waxtaan bi antu ci accord bu nga xam ne jot nañ fay kon fay dara paa bi amul lenn li nga xam ne euh, jënd nañ ko ci loxoy paa bi par contre am na keneen ki nga xam ne ñëw na Paa bi jaay ko mooy suñu promoteur Narcisse boobu ba léegi ñoom ci seen i wax am nañ baay ci lañ attaqué Narcisse ba ñu laajee Paa bi nag Paa bi xamal nañ ni Sokabek mosu koo attaqué dañoo jaar ci Narcisse pour mun a jaar ci kawam lii moo indi wax ji bañ xamee loolu nag Paa bi woote nañ wuy nañ nekk nag liiñ soxla mooy euh, na yoon def liggéeyam ba ñu xam ni lii kan moo ko moom ndax Sokabek bu demee ba am baay baay dafay am procédure normale. bail bi amul au fond du dossier amul fond de dossier amul dara léegi nag kañu tudd ni moom moo leen ko jaay ñoom ñoo xam fa ñu war a jaar ndax nit déjà boo amee occupant ka nga xam moo occupé au moins sax di nga ñëw fekk ko sur le site waxtaan ak moom ki war a def constat bi euh, mission agent sur le site war na mun a am information pas bi ba xam ni kii moo fi nekk bu dee amul kayit ñoo xam ne nañu koy defee ka nga xam ne jënd na kayitam depuis communauté rurale depuis 2000 lañ ko ko jox mu ngi koy jënd 95 ñu jox ko délibération communauté rurale 19 2000 te loolu Socabek yëg na ko kon fan la ñu war a mën jaar ba am lii donc comme yaa a eu des menaces d'après Narcisse ci li mu wax Socabek menacé na ko ci ne ko terrain bi dinañ ko am ci nii mbaa ci naa donc lii moo indi wax ci depuis 2016 2016 ba tey on a eu tous les problèmes du monde parce que li ñu li ñu suñu bébét mooy bu ñu amoon li ñu tabax dëkkal suñu njaboot li ci des on va continuer notre service lii mooy euh, tolof tolof bi ñu dëkkee depuis 2016 ba tey te dara indiwu ko lu dul Socabek di lancer alerte Socabek ne leen sit bi bëggatuñ leen fi gis lu weesu loolu di lancer euh, euh, euh, un appel à l'opinion xamal leen ni lii moo fi xew borom tool baa ngi nii dégg ngeen la mu wax ni tool bi mosu koo jaay su kaa bekk ñu ngi interpellé nag kilifa yi di interpellé pratiquement les autorités waaw les autorités ñu ngi leen di interpellé ba ci président de la république bañ ñu ko ñu ngi leen di interpellé ñu jël seen déjà ñii de des délinquants fonciers ñu ngi leen di alerter ni ñun bañatuñu ci dara